ñu tàppate écran bi di partager live bi dañu tàppate écran bi di partager live bi mu gaaw léegi mu jeex tuutee ci des tuutee ci des rek ma nekk ci yéen gisoo taat waa ngi nii maanaam énergie la quoi daf may may force de doole pour li ma war a wax dafa am ay rumeur agaces yu may énergie bi di may léegi mu jeex incha allah ci laa ne nii rek léegi mu jeex léegi mu jeex incha allah. énergie ay sax maa ngi ñëw de damay doog a jël sama allergie waaw énergie lay doog a jël ma naan allergie aja léegi nag gars dama bëgg ngeen partager live bi mu gaaw wuyu ma eh, man may borom lay yi man maay borom ndeyu dëkk bi eh maa bëgg ngeen partage ndeyu live bi tapote écran mu yéeg ma jàkkaaroog Sénégalais yi eh maay live de man la man la bu ma jaawale waay man a waay wuy ma man a man a man a man a bu leen ma jaawale man la boos maay live na yéeg na yéeg quoi man maay live man la man a man kenn liveul man la amul sikki sàkk ndax kii aada la non man a maay borom réew mi na yëg mba commencé mba commencé mba na yëg tapote leen écran bi li war a leer moo war a bëri waaw am contentement ci yéen am mbégte di leen bëggee di leen ziyaare <laughs> di bëggee sama gaay yi laal leen kër yi waay na kër eh, bi ngeen laal kër yi tapote leen bi ngeen laal kër yi tapote leen écran bi ngeen laal kër yi na kër yi yëngu na kër yi jóg très bien ngeen tapote écran bi nag te partage écran bi passo. Sì, ne sei proprio sicuro? Si sta paoneggiando. gars yi na live bi yéeg mu gaaw waay bu la eh wuy ma bu leen man dayu yëngal waay na live bi katt ndayam yéeg egg 4000 personnes ma katt ndayu réew mi waay wala boog 4000 personnes laa bëgg live bi yéeg na yéeg live bi na ngeen tàppate ko bës ko yónnee kër yi xam nga li ñu war a régler ci dëkk bi dafa bëri dëkk bi li nu fu war a wax ak war koo régler dafa bëri na live bi yéeg sama yaram tàngagul de déedéet non non sama yaram gul waxaguma dara waa ma ñëw ñi may wax appel ma ñëw ma ñëw gars wuy ma appel yi teel na de appel yi teel na sama yaram tàngagul sama yaram tàngagul ma xool ñuy woote appel <coughs> aca baa yéen ngi ci laay bi incha allah bu soobee yàlla ci kanam naa leen jël yéen ñëpp bu soobee yàlla amoore abbas on Ecco. gay dama bëgg live bi mu yéeg mille personne laa leen laaj ci kaw pour mu mën a wax tàppate écran yi na yegg 100000 wuyu ma 4000 personnes ci kaw 100000 tàppate écran bi ma commencé ci yéen la des eh man am naa taade man dama am jot. nee naa leen mille personne ci vues yi lay commencé 100000 tapotas incha allah ma commencé léegi bu ngeen bëggee temps bi ñu bañ koo dagg mu gaaw def leen li ma leen wax 4000 ci kaw tapotas 100000 waaw kay na gaaw waaw nii la nii la nii la samay xarit ngeen nag samay xarit ngeen man ak yéen danoo miinante de man ak yéen danoo xamante. vous êtes mes amis samay xarit ngeen samay xarit ngeen quoi danoo yàgg amare sa parlando eh cosa mi guardi così male ah sono in diretta cëm sama gaa yi yéena moo bëgg de man boos man nag boos bugg naa xam nag man lu ma defal sénégalais yi quoi saa yu ma leen woowee ñëw billahi sénégalais yi ci lu ma leen ñuy woo ñoom pare nan pour ñëw aadama rek la ñuy topp amuñu ku ñuy topp ci àdduna bi ku dul boos faale wuñ ko ñoom daal aadama rek war naa leen a delloo njëkkal nag defal leen benn affaire sagal leen tuuti bëgg ngeen ma de xam naa saa yu ma wootee ngeen ñëw sénégalais yi daal merci beaucoup léegi nag mais numéro England bi kan la kii kan la allo Mouhamed naam waaw Mouhamed maa ngi nii su ma waxee ba pare laa leen di jëlewu di nga dugg. waaw d' accord maa ngi ci suuf dégg nga maa ngi maa ngi lay envoyé ola ola soo gisee rek nga xam ne la dégg nga. dëgg la. ok tey Mouhamed Gambien bi doon ketal boos la moom de ak bëgg ak bëgg dugg moom. ola ola boo gisee ola ma ne Mouhamed di nga dugg ndànk rek di nga dugg. léegi nag sama gaay benn affaire dafa am dara warulu live bi loo xam ne damaa bëgg ñu régler ko une bonne fois pour tout maanaam sénégalais yi danoo yëkkati woon seen xaalis dimbalee ko ummi pour mu faj tànk bi maanaam ummi dañu ko gis mu nekk ak boss ensemble ñu gis ko muy soox yor tànkam ñépp seeni cër mat ñuy man di dem di ñëw moom yàlla natt ko cëram matul ñu génn def interview ne danoo bëgg a yóbbu ummi pour mu faju ñu def kañot ñu ñépp ñu dugal suñu xaalis ba noom ay millions yu takku ñu ne ummi day faju ji xar ci suñ tàkk tubéy Aïssa doon ko ketal ak Mohamed mama gise doon leen jàppale ba nga xamante si nii ummi na la na dix mille euros dix mille euros nag xaw ma ñaata million lay doon Sénégal jàpp leen ne mille cinq cent yu nekk un million la dix mille xam xamatuma ñaata la ndax dama gëj Sénégal tamit mais dix mille euros daal am nañ ko dix mille euros xaalis bi mën na ko dix mille euros très bien six million am nañ six million ba amee six million jot nañoo dugal avance ba nu dugalee avance mama gise yóbbu na leen ba def procédure bi ba visa ummi génn visa ummi mu ngi nekk six mois ak une semaine maanaam six visa ummi am ba tey jii nii ngi valable léegi nag Sénégal yi li ñu war a leeral mooy ummi visa wam génn na mais munta dem mais lan moo tax ummi munta dem parce que boos nee na moom amul visa bu ummi amul visa moom du mën a ànd ak moom dem mais damay laajte ndax boos moo la fañ boos moom moo làgge ndax boos moom la tànk yi dagg ndax boos moom la cëram matul déedéet ñun ban doon joxe suñu xaalis di ket yàlla ak ummi moo tax ndax yërëm ko gis nañ ne jigéen ju rafet la jigéen ju baax la jigéen ju set la gu civilisé la bu amee tànk ku ko gën a jongoma Sénégal amul loolu ñu yërëm ko ci Sénégal yi dajalee seen kanoj pour mu fajoo mais loolu yéen sénégalais seen mission jaar na yoon ndax la ngeen bëggoon am na visa ummi génn na mais boos moom nee na ummi du dem tànk moom tamit amul visa comprendre ngeen li war a live bi boos nee na ummi di jóge fii dem ci wax ji nu wax ñi nga xam ne ñoo doon wax nag ummi du fi jóge dem te moom amul visa ma ne ah loolu bu amee boos def na erreur parce que ñun li tax ñu joxe woon sunu xaalis mooy maanaam tànk ummi ummi moo la fañ ummi lan war a fañ ñu def ci ay xaalis bu bëri dix mille euros ay millions millions yi nag. ñoom dañoo mujj décider ñu ne comme que boos mënut a dem ñu ne ñoom léegi dematul Europe danoo bëgg ñu delloo leen seen xaalis xaalis bi docteur yi dugalaatal nañ ko ci seen compte ñoom ñi ngeeg moom maanaam dix mille euros yin ketoon xaalis baa ngeen ñoom jamono jii mais nag teewul seen visa génn na mais visa bi kenn mënu koo bloqué tey ju ummi bu ko neexoon dugg Europe ndax mi ngeeg visa am mais jotaan nañ seen xaalis xaalis ban jotoon a avance docteur yi delloo na leen ko ban dugg ci compte seen compte yoraat nañ xaalis bi bëggatu ñoo dem Europe tamit parce que boos amul visa léegi nag li war a live bi mooy boos làggewul boos tànkam ñàkku ko boos ñàkkul bëtam cërëm yi man na macha allah ummi moom moo la fañ ummi moo manqué tànk ummi la ni faj sénégalais yi yërëm ko dugal seen xaalis léegi nag seen normal sénégalais yi xam xaalis bi ngeen dugal ana fan la nekk ak nan la mujje seen normal ngeen xam ko tout à fait normal parce que yéen a def seen kañot yéen a dugal seen xaalis seen normal ngin xam fu xaalis bi toll fu visa yi toll ah nan la xaalis bi mujje ak fu xaalis bi nekk c'est normal dafa war a leer man maa leen di wax fi xaalis bi nekk. jotoon na loo dugal avance ba seen visa génn benn visa lan am nag muy ummi mais boss nee na bu amul visa du bàyyi ummi muy dem nii la kaa bi demee kon ummi moom bu fekkee boss su ko gënal santeem mais baax na léegi nag xaalis bi yéen ñi bëgg a xam fu mu mujj mooy xaalis bi ñoom delloo waat na leen ko dañoo décider ne dematul donte bu fekkee ummi am na visa jamono jii décider na ne ñoom dematul xaalis bi docteur yi dugalaatan nañ ko ci compte boos jot nañ ko tey. xaalis bi dugg na mi ngi ci seen compte dix mille euros la nag six millions six million la jot nañ ko dugalaat nañ leen ko léegi nag liñ ci am ba di ci wax mooy man de bu doon mën a ma am sama jabar mu manqué tànk samay cër mat mu leer na ma ne sama jabar bu demee Europe dina mën a faju yërmande Sénégalais yi dina ko wàcc te kenn du ko xeeb barki Serigne Babacar si ma bàyyi ko mu dem ma toog comme comme moom mooy faju man dara jotuma ma bàyyi ko moom mu dem faju ci ngor ak dignité boo wér ñëwaat fekk si ma bu doon mana a noonu laay def mais comme que poos moom nee na moom bu ummi bu amul visa moom ummi du dem man c'est dommage ñaawlu naa ko trop rafetluwu ma ko man su doon mën a ma bàyyi ummi mu dem man su doon mën a ma bàyyi ummi mu dem yow nga war ko koo wàccel ne déedéet du dama koy araamal ne du dem Italie tant que man sama visa amul mais boos mënoo am visa parce que yow doo malaat boos feebaroo sa dara manquéwul ummi moo feebar ummi moom la tànkam nan ko bàyyi mu dem fa yi léegi nag loolu lañ décidé daan ne léegi nag boos sax tey dafa taaloon live ne sénégalais bu ci dugaloon sa xaalis boo leen woowee téléphone ne leen damaa soxlawaat sama xaalis nga wax leen ban numéro ngeen koy dugal yaa ngi dégg nee na mu delloo leen seen xaalis ma ne ko déedéet loolu benn Sénégal du ko def ndax Sénégal yi ummi leen dimbali ummi leen dimbali yow yaa war a am xel kay mën a xam na nga ko mais Sénégal yi du la woo naan la damaa soxlawaat sama xaalis loolu day mel ne defuñu te yàlla tax yéen la ngeen waroon a def def ngeen ko fa ngeen waroon a jaar yàlla gis na ko fa te la ngeen bëggoon mu am lépp a sotti bu bolekee ci lii la boleke visa visa wam génn na mën a dem faju ji tout à fait d'accord seen jaan wàcc na def ngeen li ngeen war a def lépp léegi nag damay dugal ñi nga xam ne ñoo engagé woon doon coow li ku ci mel ne Aïcha ak Mouhamed parce que ñoom ñoo doon wër di katal boos di ko jàppale ci wàllum xaalis ak mama gise mi nga xam ne moo doon defar visa yi parce que fii mooy laayi fu aadamo lépp fii lay leere ku mën a live ci àdduna bi moom la intéressé mais live bi sénégalais yi di déglu àdduna di ko déglu nit ñi di ko xaar mu wala leer mooy king bi maa ngi nii TFM a ngi nii fu neex waaye dem nag mais TFM moom lépp fii lay leere TFM waaw bu ma nee salaamaaleykum ñoom ñëpp ñëw di déglu TFM di ko bàyyi xel fii mooy fu leer fi fii la lépp di leere fii la lépp di leere kaa bi bu leen ko yàkkamti dama bëgg ngeen jël seen temps mën a déglu lépp déglu demande yi déglu lépp xam fa mu mujje kuy dagg-daggal nga dugal kuy jël-jëlal mais dafa war a leer incha allahu rabbi bismillah ummi tamit du ñàkk dinaa ko woo ak boos tamit ñu yokk ci ay leeral jërë ngeen jëf waaw jërëjëf Adamo ay maa ngi ziar. maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñuy seetaan yëpp mama gisee fu si ron foofu mu ne Mariama foog naa Mariama la. waaw waaw maa ngi leen naa nuyu di leen nuyu ñuy seetaan yëpp yëpp um, dama bëggoon a leeral fee na xaalis bi mu tudd um, ten thousand five thousand lañ am moitié bi lañ am. ok. waaw moitié bi lañ am. mais Aïssa yow tamit del pressé du leer parce que live boo dem ne 10000 live boo ñëwaat ne 5000 il faut ngay xam lu leer. déedéet Adamo Sénégal ñoo lay seetaan àdduna di la seetaan. déedéet Adamo déglul man. sànq may ma ma ñëw rek Aïssa Aïssa may ma ma ñëw sànq seetaan naa la ci live yow ak Elou. nga dugg ne 10000. déedéet ma ne xaalis déedéet ma ne faj bi yëpp 10000 lañ ñu caaj. faj bi yëpp comme bu dee sa olof leerul da ngay wax ñu la ko leeral ndax ñëpp jàpp na ne diw bi góor la comprendre wul waaye ñoom understand ne diw bi déedéet ten thousand moo nekk faj bi yëpp bismillah loolu lañ ko caaj mama gisee loolu la bil bi loolu la moo nekk ten thousand waaye five thousand moitié bi lañ fay loolu lañ deeloo tey loolu laa nekk di wax foofu laa la nekk di leeral. Hmm. ten thousand la moo moo nekk dix mille euros waaye fayuñ loolu yëpp si hospital bi. hôpital bi dafa war a dafa war ñu fay moitié bi loolu lañ fay suñ buñ fayee moitié bi léegi ummi am na waaye boos amut bul wax ne boos moo wax ne ummi du dem ummi si boppam aadama mu ne moom du dem loolu la wax. parce que yow keroog bu ñu doon def live yow yëguloo ko suñu live bi mujj bi umi si boppam mu ne man maa feebar man maa war a dem faju du ma demati wax na ko mu ne moom du dem mu ne moom du mun a dem saa boos boos tam. mu ne waaw mais maman gisee nee na ma gisee nee na ba mu leen woowee. Mhm. boos daf ne d'accordul ci boppam ummi di dem. waaw di dem moom kese. waaw mu ne. loolu kay mooy moom moo nanguwul ummi dem maanaam wax ji moo war a leer. waaw wax bi moom leer na waaye ummi tamit mu ne moom du dem su jëkkëram demutee jëkkër bi tamit mu ne jabar bi du dem. waaye léegi dugal maman gisee mu ngi si roon dugal ko foog naa def na demandé. nu mu tudd ma mama gisee Mariama Maria doom li fi ni doomam nekk di use Mariama Mariama la foog na mama gise bindal pour Adamu. léegi sa kële nu mu papa moomu nu mu tudd. Mohamed ne papa Africa la fa def. Mohamed mu ne papa. il faut ngeen leeralal Sénégalais yu leer parce que danoo joxe seen xaalis. waa loolu moo tax ñu ngi leeral nag yéen nit baaxul. waaw yaa ngi dégg ay ñu def joxe seen xaalis ba pare ñu naan kii di dem du faju ji ba pare léegi xaalis bi ni muy mujjee ak nu ko gars yi di def loolu lépp war ko xam ndax yéen la doon jox bi. loolu moo tax tey ñu ñëw laaj. parce que xaalis bi bu visa bi génnee dañ am meeting ñun yëpp suñ biir ñu ne boos ah affaire si de nuñ ko gisee mooy parce que umi am na visa bàyyil umi mu dem parce que moom mooy dem faju ji boos mu ne umi du mun a dem saa moom. léegi tey buñ jotee xaalis bi. man yaa ma da nga koy wax mu commentaire su ko defee mu mën koo jël parce que. ma maa maman gisee su nekkee ne yaa ngi seetaan live bi. commentaire ko mu commentaire Adama mu mun laa gis. da ngay demander maa gisee pour Adama mu mun laa gis. waaw bisimilah. ñu ngi lay déglu. waaw léegi boos tey soo gisee ñu ñëw live Adamo dañu ñëw leeral sénégalais ne comme xaalis bi xam nga boos bu mu defee clip sénégalais yu bari dañ génnoon ñu ne xaalisi clip bi xaalis buñ ket la boos defee clip so loolu moo tax tey ñu ñëw di leeral sénégalais ne déedéet du loolu xaalis bi jot nañ ko tey waaye visa bi mu ngi valable mu ngi six weeks la benn weer ak ñaari semaine visa bi maa ngi ko amee soo bëggee ma envoyé la ko sax léegi visa bi benn tey mu ngi baax suba suba umi mun naay dem léegi sénégalais ñu xam ne umi mu ngi am xaalis bi mu ngi am visa yam tamit waaye mu ne jëkkëram mu ne du dem saa moom. waaw léegi nag. Ah. sénégalais yi dugaloon seen xaalis. waaw ah bu dee umi demul. wala maanaam xaalis bi ñoom lan lan ci fas yéene def ak lan la ñuy waajal ci xaalis bi. léegi xaalis bi gars yi lu ñu waajal ñu ne. ñu ngi amee xaalis bi si seen compte. ñu ne Sénégalais képp koo xam ne dugal nga si sa xaalis te yaa ngi bugg a pour ñu jël da nga bugg a nangu da bugg a ñu delloo la sa xaalis nga woo leen e, ni e, weef boo leen def nga capturer ko nga envoyé leen ñoom dinañ la delloo sa xaalis ñoom loolu la gaay wax ñu ne ku bugg jël sa xaalis rek ñoom mun nañ laa delloo sa xaalis léegi ñoom dañooy liggéey ñu dajale seen xaalis bopp ñu def beneen procédure ñoom ñaar yëpp ñu dem faju ñu ñëwaat gaay yi loolu lañ wax ne loolu la ñooy def léegi xaalis bi gaay yi ñu ngi ko amee ñu ne sénégalais bu bu fa def xaalisam ak gambien because nekkul sénégalais rek ñoo fa def seen xaalis gambien yi def nañ fa xaalis bu bari ñoom ñu ne ku bugg sa xaalis rek nga contacter leen ñoom dinañ la delloo sa xaalis gars yi loolu lañ wax. waaw mais léegi li li nu bëgg a xam mooy maanaam bu dee visa kii un mois la ak ak semaine lan moo tax maanaam ummi. Hmm. ah fajul fasul jomam rek dem faju ji maanaam toog fi mu toog topp boos naan bu demul duma dem mais boos am na ñaari tànk am na ñaari loxo lafa ñu dara jotu ko ban koy ketal ummee tax ñu génnee suñu xaalis ba ñu joxe xaalis bi ummi leen yërëm ummee war a dem faju ji du boos ñëpp ah. loolu lañu man sax ñun wax nañ ko loolu ñu ne ko ne. mais affaire yi moo war a féete ci yoon leer. waa léegi leeral boobu lañ lekk di def ni ñoom ñu ne ñoom du ah. ba umi mu ne du de boos mu ne umi du dem saa moom parce que umi la visa yam génn moom visa yam génnut léegi moom mu ne jabar bi du dem jabar bi tamit nangu na mu ne moom du dem saa jëkkëram ñu ne ñoom duñ mun a dem ñu bàyyi kenn si ganaaw ma ne ko waaye umi nekkut xale mag la mu ne umi moom daf koy jàppale dina ko dimbale ma ne ko waaye umi nekku xale mag la mun na dem. foofu mais ñoom ñu ngi naan tamit demeewul noonu. ñoom naka la demee kon. nee na demeewul noonu. ba bare ba bare umi tey jot naa ko nee na ma Mouhamed mii ku bëgg succès la ay waxi succès la bëgg waxi bës rek lay waxtaan Mouhamed mii. tey woo na ma téléphone umi. waa léegi umi su la wooyee dugal ko si live bi mu ñëw mu leeral su nekkee ne demeewul. dinaa ko dinaa ko woo ma dama koy woo. ma mama gisee doo am lii parce que xam ma mama gisee moo nekk moo nekk eh, itali moom moo dem ut hospital bi moom moo def lijjanti yëpp ñun moom dañ fa nekk rek di di xaalis o something léegi ma mama gisee tam mu ñëw mu leeral su nekkee ne ummi mu ne wut noonu léegi ñoom ñu ñëw ñu wax na mu demee ñun yëpp ñu déglu leen parce que sénégalais ak gambien yëpp ñu ngi toog di leen déglu. ok ñu ngi lay déglu. Mohamed bismillah. waaw asalaamaaleykum mbokk yi pour ñi ma xamut rek Mahamed la Mahamed Rahman Kuka maa changé suma tur muy Papa Africa ci gàttal ma Adamo dama bëgg nga expliquer lan la la umi wax tey nga ne société comprendre ma part boobu ma mun cee tontu. nee na yow ci boppam da ngaa bëgg bës foo dem système moo la jaral lu ne. loolu maa ngi ko li mu wax loolu maa ngi ko téye. mu dem lan comprendre ma loolu moo waaw. waaw ok moom nagul naa ko loolu parce que man yàlla moo ma boole ak umi ak boos bugga leen a jàppale te yàlla tax te soo gisee ma duggoon ci suma séer bii ci kaw muy Aïcha Singaate muy Gambien ni man fu ma ko gis lu mu songa la ma koy jàppale bañ ko daaneel yàlla xam na ne loolu moo ci dugaloon ba tey ma xamante boos ak umi nag foog man gor gor rek laa mun a nekka te du ma nangu suma mborom mi gor gën maa nekk gor dëgg la man fi ma taxawoon laa taxawoon ci diggante umi ak boos mais boos ah def na erreur bi ci kanami ñëpp parce que dëgg dëgg ñun def nañ liñ mun dix mille euros la soxloon kital nañ ko cinq mille euros man a Aïcha bañ eggee ci laay fam ñu amal ko cinq mille euros ci biir deux semaines plus wax dëgg yàlla ah ñun def nañ liñ mun bon ba loolu weesu yee ni ñaa doon wax ne xaalis bi moom la boos di jël di ko def ay ay clip ak fii la xari jaarak yooyu soo ñu lii lañ buggoon a leeral tey xaalis bi jóg jot nañ ca mu ngi ci compte boos ñu ngi gërëm di sant madam Guissé bi yéeg si léegi nii ci lim def ci lim ñu jàppale parce que bu du doon moom du ñu am hôpital bi am des fois ñaareel bi tamit maa ngi jégalu waa Sénégal ak Gambie yépp loo xam ne tey comprendre wuñ ko wala tooñ nañ leen ti ñu ngi jégalu ñu ne jégoon rek pour jàppale te yàlla tax ñun ci lii la ñuy yëngu man ak Aïcha ñu nit dañuy jàppale doomi sénégalais ak gambien yi Aïcha jàppale na fi. yéen tamit Mouhamed mënu leen a yëngu ci ket goo xam ne da ngeen di dajale xaalisu jàmbur yi te dara du sotti maanaam ki ñi ngeen di defal duñ mën a dem duñ mën a def dara maanaam bu ngeeni di catalyse ne diglu ma rek bu beneen yoonatee da ngeen di jël affaire yi ngeen def ko seen conte bu demee ba échec am képp ko dugaloon seen xaalis yéen yéen a koy jël yéen ngeen delloowaat ko ko wala ngeen wax ñu xaalis bi dugg mais nekkul ne nit ki mooy téye wéefam di encaisser bu affaire bi wul mu téye xaalis bi ket yooyu kenn waxu ko kenn du ketee noonu. Adamo xam nañ ne nangu naa loolu ketee noonu. nangul naa la ko Adamo laajee xaalis noonu. loolu dëgg la waaw kay ñun nangu naa. kenn du laajee noonu xaalis. waaw loolu dëgg la nangu nañ ko jàng nañ ci bi yoon ñu ngi jégalu waa Sénégal yëpp waaw ay ma mee la nga wax waaw nangul naa la ko Mariam Mariama muy muy madame Guissé. bien fait maanaam Guissé ngi na ci. mais tey li ñu ko wax nee na li mu nett li yëpp dara du ci dëgg. ndax mu ndax madame bi sa def na visa kenn du la ko may di ko boleke mais wax na dëgg luñ ciy boleke bon li mu wax noonu dëgg la céréale mama madame gise li mu waroon a lijjanti lijjanti na ko fexe na ba ummi am visa mais ummi moom mi mooy malade bi moo feebar kon li mu war a def moom jaanam wàcc na def na ko keneen ku ci mën a defaat leneen wala ñu jëm ñoom la mais madame gise li mu war a def def na ko madame gise ñu ngi lay déglu bisimilah. waa asalaamaaleykum. waaw. Ah. Ah, maaleykum salaam. <laughs> lii presque lépp wax ngeen ko xam nga ñoom moo Mouhamed ñoom ñoo doon ket man sax daawuma ci génn même bos sax bi may commencé di lijjanti papier kiyam yi daf ma daan wax naan ma ndax su ma demee fenn mun naa laa gërëm ma ni ko noonoo bul tudd sama tur parce que man bugguma siiw daal damay def rek te yàlla tax bi may xamanteeg bos man mii maa koo contacté ne ko dama bëgg a jàppale sa jabar pour mu ñëw faju si Europe euh, pour pour kii pour mu am euh, protège léegi da ngay dem ci médecin bi pour mu defal euh, kii bi mesure bi pour ma defal ko wutal ko fii protège après boo si ne ma maman protège de taxu ko taxul sax mu toog parce que dafa war a opérer opérer na ñaari yoon mais opération yi fii jaarul yoon daal ba tax na léegi dañ ne dafay opérer ji si wala Europe ma ni ko bu dee Tunisie de xaw fa kenn waaye bu dee Europe moom mun naa la lijjantil parce que am naa sama benn doomu sœur boo xam ne man lañ ko tuddee yaay ji dafa gaañu te affaire tànk la amoon te vraiment ki ko opéré moom opération bi jaar na yoon parce que tànk bi dafa sutante woon te léegi tolloo waaye nag boo boo jógee eh, extérieur xaalis bi day cher daal mu ne ma amul problème parce que am nañ ku nekk ci gouvernement bi nee na bu ñu àggee ba ci foofu tollee foofu dina ko dinañu ko mën a fayal Mamadou Yatta Saay waaw waxuma woon sax turam ma ne ko waa baax na amul problème bu dee loolu mën naa la cee doxal après ma sama oto ma woote hôpitalu Bologne ñu ne ma da ngay ñëw ma sama oto dem def sama essence cinquante euro fay sama oto estrade di euro aller dem ci montagne ku ne xam ne ni hôpitalu Risoli fa mu nekk ca montagne ma dem fa jël multu sax ci biir euh, Bologne multu soixante di euro yooyu yëpp maa ko fay képp ku takk ci bos mosuma jox 1000 francs bos mosuma jox mille francs seen dërëm mosuma ko laal lépp sama xaalisu bopp laa doon def ndax maa doon maa leen bëgg a jàppale te yàlla tax. léegi bi ma demee après docteur bi ma expliqué ko mu ne ma il faut kon mu jël rendez-vous visite ma ne ko ki ngay visite nekku fi di mi ngi Sénégal mu ne ma waaw mais dañuy def visite de loin nga xam ne moom day ñëw da ngay ñëw toog ma koy laaj. après rajoom yeeg yëpp mu yónnee ma ko ma ne ko waa kon baax na ma ma ñu wootente groupe comme dañ am groupe ma wax ko ci groupe bi ne leen nag visite bi 22 euros la yónnee leen ko après Aïcha ne ma mamaa gisee comme que yow yaay dem di fa def sa essence ak yooyu bàyyil ñun ñu ci groupe bi kon ñu participer yow nga bañ a participer ma ne ko noonu amul problème nañ leen participer ñun ñëpp rek comme ñoo ko sumb après ñu participer ñun ñëpp xa suñu xaalis. boos dugalu ci dara moom ñun ñii ñoo participer suñu xaalisu bopp après dem bi ma demee euh, ñu docteur bi ne ma woo ko ma woo ko mu ne ma nee na ma yónnee rajo yi mu yónnee rajo yi mu ne ma nee na yëkkati tànk bi foto ko yónnee ma ñu foto tànk bi yónnee ko keroog bi ma ko gisee tànk ummi bi dama jooy sax après docteur bi ne ma léegi kii mun naa ko opérer waaye opération bi nii ak nii lay demee léegi dama lay jox fi nga xam ne moom ngay woote ak email bi ngay yónnee bu ko defee ñoom ñoo lay defal procédure bi ma ne ko waa d'accord man ak ñoom man ak ñoom man ak ñoom ba procédure bi pare ba ma yónnee ko kayit yi mooy kayit yooyu ngeen jotoon noonu léegi bi ñuy def loolu ñu ne mu ne lé ñu mu ne léegi euh, accompagnatrice bi day day am ku koy accompagner ma ne ko waa jëkkëram mën na ko accompagner mu ne ma waa d'accord mu ne ma accompagnatrice bi ak kii bi yëpp dix mille ko quelque euro la ma ni ko waa ma ñoom bos ñu waxtaan ci ñun ñëpp comme ni ñuy waxtaane ñu ne ni lii la ñuy fay Aïcha ne comme que egsi na fii te xaalis bi dafa bari kon nañ leen def live bu ko defee bon bonne volonté yi jàppale ñu